yor sa clavier lu la neex def waaye niveau bii ñuy nekk Cheikh Amadou Bamba fii mu nekk góor mësu faa dem te lii xew fii ci senegal ñu bëgg fee jële lii tudd tasawuf bëgg fee jële kilifa ak diine kilifa ak diine ñoom ñu ne amul ndax gëmuñu ko ña leen convaincre ca bitim réew ba leen di def loolu li ñuy def fii ñooy seeni kilifa ku amul kilifa amul xaw ma dégg ngeen ma am dégg nga ma li ma la bëgg wax. ña leen convaincre ca bitim réew. ba leen di effacé kilifa ak diine ñooña ñooy seeni kilifa ku amul kilifa nekku fi. ñoom ñëpp am kilifa. te bu ñu seetee seen kilifa yooya ak sunuy kilifa ñoo xam ni sunuy kilifa ñoo gën seeni kilifa. parce que suñuy kilifa ñun amuñu gàkk amuñ benn gàkk ni perkal la nu mel sëriñ tubaa daa tàll bàyyi Moussa Ka nee na dëddug Bàmba ga ak diineem ja bi jaaw ba yokku ko te diineem ja ak xam-xam ba am am ba dàqu ko te xam-xam ba ak sellal ba sañ-sañ ba yàqu ko borom zahir ak la moo tax nu topp ko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 da daa làq ay daaif di fat law ba yaa ki seeñ ku ñëw yóbbu may yoo xam ni seen maam ya am tikoon sëñ Tuubaa nu meloon ak àdduna Baay Musaa Ka ni àdduna yaa ngi mel niw fel ci moom mbaate dëñu teeñ xam nga ko àdduna ci yow ni fel yaawan ginnaaw àdduna Cheikh Ahmadou Bamba waaye moo daw jublu yàlla nag dama am fu ma tolloon di wax ni genn kabara moo gën jul julli juróomi junni sëñ Mbay Jaxatee ko wax sëñ Ibrahima sàmb jël wax na dëgg xam nga lu ma lay leerale li ma wax yow mi nga xam ni ndaw nga te dëkk ci suñu dëkk bii da ngay dem ci entreprise bu état bi moom societé nga fekk fa directeur général muy fayeeku lu jege fukki million ñett nga fekk fa am Saliou Samb moo xam ne mooy ne ci naaj wi kenn ci kër gi di daw di dem ak a ñëw di fayeeku deux cent mille mbaa trois cent te moo gën a sonn waa ji te ñoom ñaar ñëpp trente jours la ñuy liggéey kii benn weeram di fay kii ay at niveau moo ko waral moo tax Cheikh Ahmadou Bamba fi mu nekkoon ci yàlla moo ko may nee na bu ma génnee tomb ñetti tomb di ko di ko ma génne tomb ñetti tomb di jàngale yàlla sëñ Tuubaa nee na sama ñetti tomb yooyu ma aadawoo di ko def di jàngale yàlla Cheikh Ahmadou Bamba nee na moo gënal yàlla jaamu yàlla gaa yu baax ya wali bihi wahabta fii aadaati maa xaaba an akabiri saadaati sëñ Tuubaa loolu rëy na mu ni des na de bu ma jàmmoo yàlla benn weer yàlla teg ci balance bu ñëpp jaamoo seen ngiru dund ñu teg ko ne sama benn weer a gën a kawee wali jaalta bi ka kulla sahri fawqa ibadatil wara fi dahri niveau mooy waral loolu nga ñëwaat